ginnaaw bu ñu sante yàlla julli sonu sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla dolli jàmm doole dal dolli xayol si réew mi ñu ngi nuyu aussi laaji bu gàndi ko ñaan li ñaan jabootam di nuy Sénégal yëpp ñu ngi ñaan yàlla dolli tawféex dolli jàmm dolli dal si mi ñu ngi nuyu suñu dëkkandoo géej waay yëpp rawatina amoon cinq yi di nuyu Sénégal yëpp di ñaan aussi yàlla yëkkati ñu tëdd te it génne ñi nga xam ne dañu jàpp fa ñu nekk. tey dañuy ñëwaat si loo xamante ni defe naa ni ñi si mucc bariwul ñi koy jàmbat bari te it saafaraam yaatu. dañ leen indi juróom-ñetti tegtal si wàllu hémorroïde muy jàngoro kajoor defe naa ni yàgg nañ waxtaan si ni koy sabab wax nit war a dundee pour mucc si li def mooy ñëw si tegtal yi ak saafara yi ndax li sëb moom la nit ñi xaar boo amee hémorroïde muy jàngal ka yor del wut xobu jàndam di ko li ñuy wax bain maanaam booy wutee xob nga baxal ko mel nga bu si lii sa ndox raxase si suuf ndox mu ndugg bi kooku baax na si wàllu jàngal kajoor ñaareelu tegtal bi mooy xasum màngo mango xas mi ngay wut baxal ko di ko naan boo amee ñeenti xas rek da nga koy baxal si liitu ndox fukki minute nga denc ko di ko naan par genn wàll kaas boo ndékkee boo añee boo baax a baax a baax la si loolu ñuy wax jàngul Kajoor boo amee aussi reenu farxañ garab gi ñuy wax xañ mooy le Trichilia emetica wala trisia roka boo si jël baax na soo ko amee nga baaxal ko di ko def laxas sa ginnaaw aussi lu am solo pour wàllu hémorroïde boobu kon ñu bàyyi xel muy reenu xañ tegtal bis topp mooy xasum uul uul boo amee xas bi da ngay tibb soxla ba mu fees fajal ko ba mu sew baaxal ko si litre ndox di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee boole si kàttanu yàlla yàlla mën a dimbali nga tàggoog hémorroïde boobu boo amee aussi li ñuy wax fayaar sungufu fayaar ak sungufu ñamako da ngay wal ñamako ba mu nekk sunguf wal fayaar bi jaxase leen def si tuuti xorom rek di ko jël par pincée nga cof si rek booy lekkee ba noppi jàlle ko ndox si kàttanu yàlla lu si baax la boo amee xobu son aussi mooy la linéa acida nga di ko baxal di ko raxas sa ginnaaw aussi sa suuf dafay faj hémorroïde boobu rawat na bu génn bi boo amee li ñuy wax laaj laaj dangay wut euh, ñetti doom yi mooy doomi ndaw yi nga fajal ko ba mu sew boole ko kudd lem nga jël ko suba gi mu jiitu sa biir sooy lekk mu mujj sa biir aussi baax na si hémorroïde laaj ak lem tegtal bu ñuy jeexale si wàllu jàngo boobu mooy da ngay wut reenu rëb rëb di ko infusé di ko naan reenu rëb rëb moo wala boo amee xas mi sax baax na boo tibbee sa bu dee xas ba mu fees rek nga tàngal ndox ba mu baax nga sotti ko sa bàyyi mu sedd nga denc ko di ko naan par kaasu ataaya boo ndékkee boo añee waaye si baax la bu dee koy baxal bu dee takkam ngay wut juróomi reen nga baxal ko ndox di ko naan par genn wàll kaas boo ndékkee boo añee boo kon lii faj jàngoro Kajoor boobu bari na bu ñëw si question yi ñu indi tey ku njëkki neen daal euh, dafa gént di compter xaalis di wàññi xaalis waaw moom daal dafa gént di wàññi xaalis ah <laughs> loolu nag waxul ni boo wàññi booy wàññi xaalis da nga am xaalis déedéet gént moom booy gént di compter xaalis mooy danga am coow loo xamante ni da nga si bokk wala nga fekke ko kon maanaam gént daal di wàññi xaalis moom du misaal bu baax ñaareelu question bi kii nee na daal dafa gént ne si njobbaxtalu garab goo xam ne ni maanaam gaa ngi koy gor gaa ngi gor garab gi te moom ma nga sa njobbaxtal la waaw gént xam naa ni moom gént njóobeen yi la rek muy lu doy waar daal nee na daal moom garab gi ñuy gor moom ma nga gént ne sa kaw garab ga sa njobbaxtal la te xam ne bu gor bi àggee moom si suuf la jëm loolu daal la ko jaaxal moom waaw loolu lu doy waar la du euh, lu baax nag puisque dina am daal ku lay wor wala ku lay taayil koo xam ne mi ngi si tànki wor la boo bëggee mucc si mbir moomu nag da ngay wut nen nga toj ko si fu ñeenti yoon daje nga toj fa nen bi si kàttanu yàlla yàlla na lim ba nga mucc si loolu. question bu mujj bi kii nee na biiru tañi la am biiru tañi di tax dysenterie bëgg si saafara moom daal fi ne sonn na ndax buy dem du daal day metti day ànd ak deret day nalu ba sonn aussi nga wut xobu goyaafa goyaafa bu tibbee loxoom ba fees. baxal ko si litre ndox juróomi min mu segg ko di ko naan par genn wàll kaas bu ndekkee bu añee bu reeree si kàttanu yàlla bu ko dee yàlla mën na ko dimbali mu tàgg tàggu dysenterie boobu même xobu mbër boobu baax na si boo amee mbër boobu fit sa loxo ba mu fees nga baxal ko si liit ndox juróomi min nga segg di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee bu añee yàlla na dimbali nga tàggoog loolu di dysenterie muy biiru teñ ñu leen tàggu fii di leen jox rendez-vous seen émission bi gërëm jërëjëf